nit ñi nga xam ne ñun ñoo taxaw wax ne Amadou la ñu bëgg mu relever ñu situation au Kaolack ñun ñëpp xam nañu Kaolack nu mu mel gis nañu dund bi ñuy dund ñu ne Amadou moo ñu doy ànd ak ay moromam ngir changer suñu nekkin changer suñu dundin ndax ëllëg. Kaolack dellu fi mu nekkoon Kaolack nekk carrefour de développement nekk deuxième capitale du Sénégal mën na ko ak équipe am gaynde bu góor suy dox ci àll gaynde bu jigéenee topp ci gannaawam. Amadou Diallo mooy kii def social Amadou Diallo mooy jàppale jaam yàlla yi te yàlla rek tax may wax ne Kaolack li fi nekk mbajam kanam borom moo koy fajal boppam. ñun dañoo sonn ñun jigéen ñi ndax ñun ñooy dem marché ñooy dem hôpital ñooy dem fépp Kaolack foo dem dafa salte dafa tooy yow moom suñ yi moom suñ carte yi te duñ ko jox kenn nag ku dul le président Amadou di la wax ne incha yow laay nekk l'homme de 2022 président Amadou su dëkkee Kaolack nekk doomi Kaolack yaroo fi màggee fi jàngee fi dadi di génn dem jàng ji à l'étranger ñëwaat Kaolack ne man dama bëgg defar Kaolack je pense que dañu war ànd ak moom pour accompagner ko mu jël mairie Kaolack bi euh, gars yi nañ leen namm suñu carte fexe jàppale ko président Amadou bu ko defee mu toog si mairie Kaolack bi gagné affaire yi defar Kaolack changé Kaolack di leen ziar bu baax baax di leen nuyu dafa dëkk dem armée il est parti de rien du tout dem armée jóge armée ñu affecté ko fii cancer mu jimit deuxième fii nii mu def fi formation jaar armée dem Casamance nekk un homme courageux jóge fa dem sagam liggéey sagam ay at nekk ambassade États-Unis ba ambassade États-Unis jël ko mu jóge foofu ne loolu doyuma mu teg fa lépp dem tukki dem États-Unis mune suma su dem fa toogee dama fay yàgg ndax li ma bëgg defal Kaolack mënumaa yàgg fenn mu jógee foofu dem France bi mu France ñu yaakaar ne day dem tok, mu dem dem Saint-Ger inscrire boppam génn fa ak diplôme génie civil jógee fa dem Espagne jiite fa société ànd ak ay tubaab ay espagnol mu ne su ma fa toogee li bëgg duma ko am damay ñibbi si Kaolack mu ñibbi si Sénégal ñëw taxawal société am global logistique BTP boobu ba léegi dawul faqul demul fenn ba tey fi mu yegg nii Amadou yaa gore damay wax ne waa Kaolack il est temps que Kaolack mu changé parce que bu ngeen xoolee bi ñu juddoo ba léegi on a des problèmes d'assainissement assainissement nag buñ koy wax moom la ñuy wax wàllu canalisation Kaolack war na dépasser présentement nekkatul village Kaolack moo nekkoon le deuxième capitale du Sénégal donc yaakaar naa ne tey waa mouvement ànd takku taxawu Kaolack pare nañ pour ànd ak doomu Kaolack yi pour assainir Kaolack développer Kaolack ba nga xam ne fu waay jugee boo duggee Kaolack di nga xam ne Kaolack changé na parce que nañ leen bàyyi xel ne maire yi fi jaar depuis 1959 changement amul biir Kaolack ku leen ko wax daf leen di nax l'assainissement qui présent ici à Val Ndiogio moo ko fi defoon bim mu koy def boobu motuñu 500 personnes boo xoolee bobu ba tey amul lenn loo xam ne dafa changé dafa rusul nag doomu Kaolack toog ba jamono bii bu tawee doo ñemee génn loolu dafa war a dëñ parce que loolu pour mu dëñ biir Kaolack ku mel ni ñun ñoo mun a taxaw nekk ay jeunes juddoo biir Kaolack nag yaroo biir Kaolack xam lu pour jël aussi suñu initiative vraiment pour pare ak sunu alal parce que boo nekkee maire il faut nga ubbi say bunt boo nekkee maire bëgg a liggéey Kaolack boo amul partenaire doo dem et partenaires yi ñu ngi sa wet jege la partenaire c'est pas seulement à l'extérieur partenaire mooy ñi la jege parce que boo ubbee sa bunt man am naa xam-xam nekk dans la génie civile mën naa ñëw taxaw pour jàppale la mais boo tëjee say porte Kaolack mooy perte Kaolack warul perte rôle lu mairie mooy taal ay làmp rôle moy bale mbedd bi loolu mooy rôlam parce que Kaolack 45 quartiers mo fi ne mais quartier yi fi bax motul 5. maa ngi tàllal samay loxo kep ko xam doomu Kaolack nga ñun dañuy paré pour ak sunu doole ak lepp lu am andi ko bir Kaolack pour développer Kaolack. je n'ai pas le droit de me dérober je suis donc candidat aux élections municipales de 2022.